bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñuy seetaan fu ngeen mën di nekk ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balwaq ci weeru tedd wi nga xam ne moom lañ dugg muy weeru koor di weeru barkeel di balwaq mbooleem jullit yëpp di ñaan yàlla suñu borom jéggal nu te lépp luñ ko ci ñaanu wala luñ ko ci jaamu mu nangul nu ko lépp luñ ko ci ñaan mu defal nu ko te mu gën ñu ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir xalifa général des Mourides mu yàgg fi lool te ànd ak wér noonu lañ koy ñaanale Serigne Cheikh Jëmb Fall xalifa général des Baye Fall ñu ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak mbooleem kilifa yi diine yëpp mbokk yi ñu ngi ci weeru koor weeru koor nag ku ko wax ci yoonu murit danga tudd Baye Fall mu nekk. liggéey bu am solo boo xam ne dañ koy def ci koor gi am lu bari nag loo xam ne xëy na euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokki jullit yi wala mbokki taalibe ñenn ñi umpale nañ ko ci doxalinu Baay Faal lu jëm ci ñàkk ko ñàkk woor gi lu jëm ci lan moo sabab ndog yi nga xam ne moom lañuy yóbbu muy bàyyeekoo ci kër ki nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Ibrahima Fall jëm ci ki nga xam ne moom moo fi nekkal Cheikhul nga xam ne at mu jot dañ koy def loolu lépp ak yeneen ci aajow ñu fas yéene ci waxtaan indi ci ay leeral ñu am mbégte nag lool di ci dalal sëriñ Maamu Ndaw Baye Fall ku ne xam ko mu nekk sunu xarit sunu wóllëre sunu sëriñ sax la ñuy wax euh, di rafet lu baax a baax a baax liggéey bu am solo bi nga xam ne mu ngi koy def ci euh, mbooleem chaîne de télévision yi kon sëñ Maam ñu ngi lay nuyu baax di la ziar. Euh, jërëjëf dina delloo ziar bu baax a baax El Hadj Fallou Sylla ci liggéey bu am solo bi. di la jaajëfal bu baax a baax eh, di ziar mboolem mbokk yi nga xam ne ñoom lañu ñu ànd liggéey bu tedd bi eh, ziar bu baax a baax sëñ Mountakha Ndiaye itam ci taxawaay bu am solo bi eh, di leen jaajëfal bu baax di rafetlu seenub liggéey itam ci àdduna bi yëpp wax dëgg foo ay mën a nekk rek yéen ngi leen di gindi lu baree baree bari ñu ngi koy xamee ci liggéey ku tedd ki di Serigne Touba Cheikhul Khadim ak taxawaayu murid yi rawatina nag ci weeru màgg wi di weeru koor. gannaaw bu ñu nuyoo ziar bu baax euh, Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan suñu borom mu dal ko fa yàggal bu baax te dolli ko wér ba ay naalam lépp mu yeggale ko bu sumb yeneen naal waaye ñi ngi ñaanal bu baax sunu jàmbaar ji di Serigne Cheikh jëm di sunu buntu ci maam Cheikh Ibrahima Fall ñaan yàlla mu yàgg fi lool te wér ba lépp lu mu naar ngir liggéeyal ko maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla na ko yeggale ba sumb yeneen naal eh, di ziar mboolem kilifa diine yëpp di ziar mboolem njabootu Serigne Touba Cheikhul Khadim gi yëpp ak mboolem taalib yëpp eh, ni nga ko waxee léegi rek ñu fas yéenee waxtaane toom yu am solo ci taxawaayu maam Cheikh Ibrahima Fall ci weeru koor te mooy li nga wax léegi rek lu bëree bëri nit ñi ñu ngi koy gis te duñ xam lu ko sabab waaye yooyu yëpp incha allah ci biir waxtaan wi eh, danañ ci gën a yaatal bu baax a baax a baax. jërëjëf sëriñ Mamour ndaw ci euh, nuyoo bu am solo boobu xam naa rek ñu tàbbi ci suñu laaj bu njëkk ndax ñu bari dañuy gis ne Baye Fall su koor jotee ñu ne Baye Fall du woor te loolu mën nañ ne Baye Fall yi buñ tëb def ko am na fu mu bàyyeekoo léegi ñu bëggoon a xam sababu lu tax Baye Fall du woor. Euh, jërëjëf sëñ Fallou xam naa laaj nga ma laaj boo xam ne laaj bu day waar la maa ngi koy wax léegi na la xam naa laaj la boo xam ne mm-hmm. euh, bari na ñoo xamante ne bii soo leen ko laajoon duñ ci tontu mm-hmm. euh, lu tax duñ ci tontu nag xëy na ñaare dañ ci du sawar sax di débat lu bari mm-hmm. waaye nag man maa ngi tontu rek ci bëgg laa leeral ndax nag man naam ni nga ko laajee am na ñooñ laaj boobu fi ne daanaka loqati nga seenub lañ ci ndax ñi ngi gis lu baree baree bari ci Baye Fall te duñ xam lu ko sabab euh, duñ xam lan moo di ak Baye Fall itam dama lay tàmbali rek ci fu gàtt ngir ñu ngir ñu gën a xam xam nga Cheikh Ibra Fall bi muy ñëw fi sëriñ bi lépp lu doom soxna war a xam xam na ko maanaam buñ jàpp ne rek Cheikh Ibra dafa ñëwee ci ak réer. walla ku jàngul déedéet maam Cheikh Ibrahima Fall njare la dëkk. li may wax nag comme àddinaa ngi may seetaan ñi dëkk ñi xam njare xam nañ ne tund njare gépp ay doomi soxna lañ ay taalul jàngoo fa ne ndax juróom-ñaari njare am te juróom-ñaari njare yëpp fu ci nekk taalub jàngoo nga fa ñii ku tedd ki lañ àndaloon ñii maam alaaji malik lañ àndaloon te tey jii sax ka yilif njare fii may waxee yow nii di ko alaaji mëgay njare mu xaddu moom alaaji malik la te sëñ Mara Ndiaye doom moo fa ne dem naa njare wàqi dem naa njare xorondom dem naa njare Dakar dem naa njare kër Saali yëpp mi ngi ci Kajoor foo ci dem jàng ak jàngale rek lañ xam. Cheikh Ibra Fall nag wooy juróom wu jigéen daana jàngale alxuraan ci njare muy maam Seynabou Ndiaye parce que Balla Faage yi mii maam moo yoroon daara di jàngale. ma ngi ñoo ma ne su maam Balla Faage yi masaan a génn maam Seynabou Ndiaye ndey Cheikh Ibra Fall téer dongo yi ñuy tari. moo tax nag waxoon na Baye Ibrahima Thiam na ko. xam naa nag lii mu waxoon Baye Ibrahima Thiam nag mooy tontu sa laaj bi def ko ne jàng naa alxuraan ba mokkal ko Cheikh tafsir naa sax ay téere xam-xam waaye Cheikh Ibra nee na sun borom moo ma ne waaw yàlla moo ma ne xam nga yàlla waxul kenn dara wolof da koo baaxoo wax waaye da nga yàlla yàlla ma dara <laughs> mais am na ñu wax dara. sun borom moo ma ne jamono ju ne li may def ci kenn laa koy def ji jamono li may def def naa ko ci Ahmadou Bamba dama wuri ko Cheikh Ibra Fall nee moo tax ma bay lépp topp sëñ Bamba kon umpale ko woon mm-hmm. waaye daa gis lu ko gënal jàng daa gis lu ko gënal julli daa gis lu ko gënal woor. te mooy ñàqal sëñ Touba Cheikh Ibra yi àdduna wax ci te danaa ci dikk. lu ma la fi nettali na ci Cheikh Ibra ku Cheikh Ibra yar moo ma ko wax. Hmm, waaw wala ku Cheikh Ibra yar baayam. Hmm, maanaam du ma du sori daal. dama naan la dégg naa ci diw mu ne ma seex Ibra nee na ko. wala dégg naa ci diw mu ne ma baayam nee na Cheikh Ibra nee na ko ndax maam Cheikh nag bindut nag. waaw loolu la yàlla dogal nag moom. waaw te sax li tax bindutoon. danaa dikk ci laaj bi de waaye dama bëgg woddal la ko ba nga xam li ma jubloo wax la tax bindu toon dafa wax ne Cheikh Ibrahima daf ne lenn lu sëñ Bambay def ma koy def du am ndax defaroo sëñ Bamba dara mooy def ko nawle te sëñ Bamba du nawle wax na sëñ Mortala Fall ne ko yaa ngi ma sàmm Njaay wàqi Mortala yaa ngi ma sàmm Njaay wàqi ak yaaram mbay da ngeen di woy mu ne ko waaw mu ne ko baleen ko doom yaaram mu ne ko Fall mu ne ko jamono ju sëñ Bamba ne dee su fa ne ndax sëñ Bamba doom day defar di gën a may defar di denc ñàkkute jàng ak ñooñam ñàkkute ñàkk eh, eh, réerut de déedéet ku gindiku la waaye dafa doon bañ a defandoo ku tedd ki dara moo tax moom dafa bàyyi woon lépp féete daana wax ne nag aw may téere doom sëñ Bamba ami téere waaye danaa fi bàyyi mag ñoo loo xam ne lu ñu wax dëgg la te mag ñi dañ fi yàgg te xam nga magi Cheikh Ibra Fall sëñ Fallou mhm. taw feex ji ñu am mooy dañoo gudd fan waaw dañoo gudd fan parce que ci Cheikh Ibra Fall da ngay gis mag mu dund 137 ans mhm. téeméeri a ak fanweeri juróom-ñaar Cheikh Tall Galo naan naan bu xaru dagonoon ma xaru bi mu fi jógee yàggul ma wax la sax li gën a jege loolu soxna Fall Mbaar xam nga ko. ay sëti ma ngi nii dend ak seex moom de seex moom mënul taxaa di ko taxaw guddeeg bëccëg waaw ñu ngi may dégg di lu bokk ci sëñ sa asu Fall ca nga bokk soxna Fall Mbaar moom ngay gis ne gudd fan la bi fi jógee yàgg soxna Mbaar moo ko fi njëkk a jóge sëñ sa asu ko fi njëkk jóge son waaw Mbaar jur jur seen bay Mbaar Mbaar moom njukki la dëkk mm-hmm. di boor buur ba ba mu demee gànnaar di tuub ji ku tedd ki sëñ Touba yabal Cheikh Ibra Fall ne ko demal tuubal ko bi mu ñëwee tuubal mbaar ba muy dem la mbaar jël ñaari doom yu góor ak ku jigéen jox ko muy Ndonga faal mbaar ak Moussa Fall mbaar ak Soxna Fall mbaar. Cheikh Ibra jël leen di leen tarbiyee dëkkoo Soxna Fall mbaar am ca Soxna Assou Fall mbaar Cheikh Ibra jox ko sëñ Touba sëñ Touba jox ko sëñ Basirou mu tawlu sëñ si Assou Fall teg ci Soxna Xadi Basirou waaw boo gisee ma di leeral loolu pour wax la na la Cheikh Ibra dafa yàgg defar ñoo xam ne gis nga nag te na fa mu jaar ak ñoom mooy lam xamoon ca njare démb ndax ndax tamit nag bàyyil xel ne maam Cheikh dañ koo waajal bu baax a baax a baax benn mooy jàng na tafsir na li mu war a xam xam na ko euh, boo demee njare tey di nga xam li la fa Cheikh Ibra nekk woon waaye nag la muy xam loolu lépp nag xam li ko war lépp téewul nag daa gis lu ko gënal loolu lépp te mooy ku tedd ki xam nga firnde li mooy Cheikh Ibra bi mu jógee Mbàkke ka maanaam njare wax di dem ci ku tedd ki dëkk yim jaar yëpp di fa wër bi fu ci nekk góor yàlla la fa fekk ma waaw fi mu mujjee jaar rek muy sëñ Tayba sëñ Touba daana yónnee ci sëñ ba am na ñu wax ne keroog ba sëñ Mor Anta Sali nelawee sëñ Tayba ku jullee Cheikh Ibra foofu la mujjee. fale gi Cheikh Adama ak ma Mata Touré te laata mu ñu sëñ ba jaar na Badar Gueye. sëñ Mayib Gueye la fa fekk waa Badar ak may dégg. wax ni ñoom Saliou Gueye Badar Gueye xam nañ daw li xew de sëñ Mayib la fa fekk. Cheikh Ibra ba mu ko fekkee ci jàkka ji ba waxtaan ak moom ba sëñ Mayib gaaral ko la ñuy nekk ñoom daf ko ne loolu de baax na waaye taxumaa jóg te booba maam Cheikh Sine lay la bàyyi ko te pourtant booba siin lay kan kilifa ya fa nekkoon yëpp ñun ràññeeloon nañ ci diina ji Mor Warxa kan Mourou Maram kan Mor Kumba kan xam nañ leen yàgg nañoo ko tedd ki. Cheikh Ibrahima siin la ñëw jóge fa dem Badar gi Badar ñu gis dafa leer ku tedd ki mu jàll tey ba Dakar ndekete booba Cheikh Adama ak Cheikh Makhtar Touré la ku tedd ki def ci ñoom lu tax bu leen bu Cheikh Fall gisee xam ne ku baax ki lañ bàyyi ko. ñoom ñaar la tegtaloo sëñ Moussa Kane la ba gis fa Cheikh Adama Guèye sànni mbiram dal ca ngoy mu woon ko bam ba mbër mu rëy sëriñ bi naan ko foo moo tax Cheikh Ibrahima Fall na woon bàyyi Abdou Ndiang ma ko wax su ma doon baag bu tàbbi cib teen ñu lugat ko ba mu génn ndox ma tuur ko ba daggu Cheikh Adama moo ko hmm. hmm, waaw hmm. daanaa doom ku ngeen nuyu na ko noo sant mu leen géy na ngeen ko wormaal ngir Cheikh Adama Guèye Cheikh Ibra ko wax léegi nag loolu lépp kon da nga cee xam ne Cheikh Ibra xam na li mu war a xam léegi nag ba loolu amee nag mu ba mu ñëwee ci ku tedd ki nag temps sëñ sëñ bi sart yi fa nekk la ko tegal. lam jotoon ci yoon wi bi muy ñëw nga xam ne fu mu jaar fu ne xamal nañ ko ne ko ñun kat lii lañ nekkee danañ julli danañ woor danañ natas dañ def nangam dañ def nangam Cheikh Ibra xam ne loolu baax na waaye nag loolu taxu koo jóg maam Cheikh dafa wax ne ki yàlla booleel ba ne naa ko gis ba jox ko sama bopp liggéeyal ko moo ma jàngal moo ma gënal jàng moo ma gënal julli moo ma gënal woor ki yàlla seetloo na naa ko liggéeyal ku ko liggéeyal eh, tabbi tabbi maanaam mucc ci safara tabbi àjjana te loolu mënoo su koo am ci jàng julle goor ndax Cheikh Ibrahima daal di wax ne soo doon jàng ak jullee woor dana tax a yegg ci kon Iblis dana daj yàlla képp waaw jeex na tàkk maam Cheikh nag gis na nag kon ñaq ñaqal ku tedd ki moo gën a woor waaw am na ko ko ne Fall dimbali ñu nga yóbbu ñu àjjana xam nga lu mu ko tontu loolu dëgg mënu ko waaye doole mën na ko waaw. maa la wax loolu sëñ Mor Mbaye Cissé ne maa dégg waa waa ji ñu dimbali ñun ëllëg nga yóbbu ñu àjjana Cheikh Ibra Fall ne ko ah loolu dëgg mënu ko doole waaye doole man na ko. na ko ah deret ceddu ñu ci mucc daa bariwul dereti ceddu ñu ci mucc daa bëriwul mag mu reer tëdd ak njabootam maam seex nee na nga reer ba rek war saw fas dugg ca dëkk ba faagaagal ñëpp jàpp góor ña def leen i jaam jàpp jigéen ña def leen ay soxna Cheikh Ibra Fall nee na ñooñee nee na buñ la ca amee mbaa ñu am ca saw jur nga defeen set nga nee na juum nga set deret moo tilim Cheikh Ibra Fall nee na deret ju tilim nee na jàpp du ko raxas julli du ko raxas ñu ne ko lu koy raxas mën a ñaqal sëñ Bamba ndax Cheikh Ibra nee na ñaq day raxas yu ko raxas yax dóor a génn kon Cheikh Ibra daa xam li ci ñaq moo tax nag waaye nag taxul mu tere julli taxul mu tere woor itam taxul mu tere yooyu déedéet mboolem xeeti ibaadaat yooyu Seex Ibra terewu ci dara terewu ko de waaye digalu ko kenn ci ñooñam de te it waxoon na ne sama maam la ko wax nag. bàyyi si waaw waaw mais Seex Ibra terewu ko neew neew neewul déedéet newul bu ko fi kenn def sama kër gi de sama maam di nee na loola jullit it la ci njaarim bàyyi Seex korog ñi ko fekkee ngi dund nag korog sëñ Jaga Jóob yàlla na yàlla yokk leeram nee na maag sëñ Seex ànd keroog bi ko bàyyi Seex maa ngi toog ba ba Baye Cheikh daf ne sëñ Mourou Aminta Fall boobu moo jottali ndax moo doon jëwriñ ni sëñ Assane. Mm-hmm. boobu sëñ Assane mooy xalifa général la Baye Fall. mu ne ko damaa gis ñu yaakaar Cheikh Ibra di julee ko woor ñàkkul ci mbooloo mi ànd ak yéen ñàkkul ci mbooloo mi ànd ak man. Mm-hmm. te man de bés naa seen Baye Baye a wax de Cheikh Ibra Fall fii. Mm-hmm. ba guddi gi xaaj mu ne ma seex ma ne Fall mu ne bu ma kenn tuumaal man Cheikh Ibra terew ma kenn mu julli bu mu woor waaye suñu moo ma ne amelu ma la borom julli woor yaa àndal soo ko defee leen fay na ma banque sa baaraam bàyyi seex ne ma banque seerafaal na ma liggéeyee gën jàng joxee gën julli maandoo gën koor seerafaal la ma ko wax te pourtant yow sëñ Fallou ñetti ñetti yooyu teg ko ci taabal ci rek ñu waxtaane ko liggéeyee gën jàng joxe gën julli Cheikh Ibra Fall ne maandoo gën koor waaw léegi nag kon Cheikh Ibra dafa am fu mu ne terewu ko maanaam du caageen ne Cheikh Ibra daf ne bu ko kenn def déedéet dégg nga la wax bu ma kenn tuumaal waxoon na it san ki jur sama maam Cheikh Ndaw ne Babacar mu ne ko Fall mu ne ko eh, ah bisimilah jàmm nam daan waxee rek ko a xam ah jàpp ak jullee woor lemp yàlla la war na bopp yàlla sàkk. waaye man Ibra Fall mii ajuma ci sama dara doom sama lépp dama ko ci liggéeyal sëñ Bamba. Babacar mu ne ko Fall mu ne ko ah fa ñuy fayee jàpp ak jullee woor ko fa taxaw di ma seet ëllëg doo ma gis waaye fa ñuy fayee liggéeyal sëñ Bamba ko fa taxaw maa lay fay mbaa doo fayu te man mii di wax yow fa laa bëgg a fayee ko ëllëg de. fa ko waaw ma ngoog kon dégg nag kon kon Cheikh Ibrahima fi jàpp baax na de jeex na tàkk nag te nag baabul muridina bunt boobu pourtant ñu ko masaane wax ci njëriñ day am ñun jaaxal xam xam waaw mais xam nga fii am penc la am na ci loo xam de su ko wax waaye man mag ña ma yar te gars yi xam nañ ma nag waaw man mag ña ma yar te yi xam nañ ma nag lépp fi leen fekk nag waaye suñ masaane wax baabul muridina ci njëriñ dana am ñu masaane jaaxal da leen di jaaxal lool am na ku ca masa àddu sax ne sëñ Tuubaa ni ni yoon wi yaatoo fenn fu ne mu samp fa ponkal waaye kenn nit nu mën a doon buntum ñëpp <laughs> da waaw nit mas na ko àddu ci njëriñ bañ ne bañ ne Ibra Fall Baabu Muridina daf na sëñ Tuubaa ni yoon wam yaatoo fenn fu ne mu samp fa mbër kenn nit nu mën a doon buntum ñëpp xam nga kon jaaxaloon na leen waaye kooku ba ko ba sëñ bi waxtaana moom dafa yegg ci ne ko xanaa xamoon ne Ibra Fall daa yoroon sama yëf damaa yor sama yëf yaakaar na kenn xamu ko Cheikh Ibra Fall di fexe ba xam ko sëñ Tuubaa nee na ma defe ne koo ko xam na ngay def ba mos ca doo ko xam Ibra sëñ Tuubaa nee ma defe ne ko ko mos dana neex ci yow ba dégg ko yéene kenn waaye nee na Ibra Fall loolu ko daf maa reetal ba ñëpp dégg ma xanaa xamoon ne gor ci Seex Ibra la moom képp ci àddina moo mas doon as gor ba pare di wër ko ko moom koo fi mas a dégg nag sëñ Fallou yaa nuy moom jii moom boo ko masaane dégg kuñ moom dañ laa rey mbaa ñu rey say bokk bu njëkk ca la daa moomee ba fii may waxe yow sax coow loo fa gis xëccoo kaw ko indi yoo xam nga loolu mm-hmm. te nun suuf nu gënal kaw foo nu fekk ci suuf ndax see seex ba ne taatu murit sax Rome lañ ci bind Rome ma la ko tey waaw Rome waaw fii noonu fi lañ ne mm-hmm. waaw parce que Cheikh Ibra Fall ne maay suuf <laughs> waay buub nag mën na xëpp sama kaw lu waay gas def ci sama biir waaye lu yàgg ci man ma def muy suuf. waaw a gis ku wax leen ak man doom mm-hmm. daan na waa baykat nag suy ñaan ko muy ñaan ñu ne ko yàlla mun a fi muy dëkki loxoom buy ñaan ñu ne ko asamaan mun a doom boobu ana yaakaaram. ñu ne ko mi ngi ci suuf mu ne lu tax baykat jël yaakaaram dénk def ci suuf ba pare dékki loxoom asamaan waaye maam Cheikh ne yàlla ko fula ndax bu ko yàlla jox ndox daf koy tooyal waaye suuf la ko yónnee Cheikh Rafal ne su ko defee suuf ëmb ndox mi génne ko njëriñam naa wax leen nag man doom kon kooku lañ war a waxal. mu mel ni euh, maam Cheikh Rafal li nga wax sànq ñaqal Serigne Touba. moo ko gënal julleeg woor. moo doonoon jaamu yàllam. léegi euh, ci foofu ñu gis ne maam Cheikh ak ñàkk wooram ndax loolu ci jamonoy Cheikhul Khadim la. waaw lépp nag ci kanamu ku tedd ki la Cheikh Ibra deful dara gannaaw sëñ bi Cheikh Ibra fii la ne du julli di woortu lu mu jox sëñ Tuubaa mu jël. te it nag ku masaana ku masaana. xam loolu tamit lu doy waar la parce que boo boo xoolee sëñ bi ni meloon ci julli ànd ak koo xamante ni du ko def te musu ko cee wax leel ne. déedéet xam nga li moom sëñ bi daa sëñ daa xam mhm. mais nag xam nga xam nga sëñ Fallou jamono ji moo doy waar neexut a waxtaaneeti ndax léegi dégg-dégg yaa am problème mais dama ne sëñ bee xam Cheikh Ibra Fall sëñ Saliou ko wax fii di ay mag. bu do xam te sëñ Mountakha mas nañu ko wax fii. bu fekkoon ne sëñ bi am am na ku koy xam ñu ne la Cheikh Ibra ko xam. waaye même seex Ibra yi ku du sëñ Tuubaa xamoo ko. dama naa xam ne ne Cheikh ngi fi sëñ bi ne fi Cheikh Ibra du julli du woor. lu mu jox sëñ bi mu jël te mu jug sëñ Tuubaa ci njëriñ lu mas di toggalu danaan lañ ko soret lu ñoro ca tolli Cheikh Ibrahima Fall. demal ji waa daan waa kër sëñ Jéeri sëñ Ahmed Sougou mu sëñ Tafsir Sougou fekke ne loola ba tey sëñ Tuubaa toggalu na dara nan nañ ko seetal lu ñoro ca toolu Cheikh Ibrahima Fall ba pare dem mu jug sëñ Touba ci njëriñ bi mu fi jógee néeg ba ko seex Ibrahima Fall liggéey la ci la sëñ bi wàcc liggéey néeg boobee Cheikh Ibrahima ko liggéey Ablaye Xaar la yónni na ko waxal Ibrahima mu def fii nangam kooku seex Ibrahima Fall la ko indi ci ku tedd ki moom doomi la am na sax lu gën a gaaw loolu gis bu ñu àndoon nii barabu Cheikh Ibrahima fi ñuy toog di duru samedi bi man barab maam maam Cheikh laay barab Cheikh Ibrahima fi ma wéeru barabu Ablaye Xaar la doomi Lat Joor mës nañ fa ànd mën nañu Cheikh Ibrahima indi indi ci yoon caddo yëpp moo leen tuubal te bu ko waxtu man ma wax la fam jaar ak jiiri jor ndee la jaar faak ñoxo mboore màngara jaar faak demba war sàll jaar faak gëdel mbóoj ca Chine jaar faak euh, euh, mbaaxaan ak Ablaay Xaar ak Kumba Celemaan may doomam Seex Ibra dencoon na ko doomi Lat Joora jaar faak mbaar joor siga ci njukki wax naa la ko léegi suñ ma du roqee ñoom mi ngi may dégg ay sëti mbaar lañ xam nañ li xew ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen wax la na lekkoon maam Seex sëñ bee ko xam moo tax da ko daan liggéeyloo ci caddu bu mos a jébul mu yutu leen ko Cheikh Ibra na sax lu ngeen mënti gis Cheikh Ibra raw na. waaw loolu sëñ Abdou Karim Touré la ko wax ay doomam ma ko nettali fii Cheikh Ibra moom raw nay maasam te deesu ko jot ndax Bàmba ko sempi mu raw yaaram bi naam Fall Cheikh Samba Diarra Mbaye ko ko wax. loola nag sëñ bee Cheikh Ibra bi fi sëñ bi ne dafa sëñ bi dafa mos a bëgg ku tudd maam Cheikh teg ca dara saa boo ko masaane def sëñ bi femm la wala mu wax ba nga xam ne li nga li nga def jaaduwul. loo mës a tudd ci kanamam ci am na sax koo xam ne euh, bam bam ne sëñ bi lu tax Ibra Fall du julli daf ko ne ndax man nga ndox. mu ne ko de mu ne ko dëppal bala ngaa lab. bala ngaa lab bala ngaa lab. kon ñàkk julli ak ñàkk a woor Seex Ibra bàyyiwul ba sëriñ bi dem déedéet ci kanamu sëriñ bi la ko doon defee te it nag jëf gi mu ko daan def ci kanamu sëñ bi teewul doomi sëñ Tuubaa nag kenn musu faa jóg war a rawatina borom kër gi moom sëñ Basiru ndax mu ci firnde li rek mooy ci kanamam la saam seex ci liggéey moom waaw tey li lay xamal na Seex Ibra sëñ bi lu ñu jarat ñoom lijjën maanaam wax ci seen mbir ne neexu ñoo xam de ne xam na neexu ñoo xam mooy sëñ Bésiroo indi Seex Ibra Fall sëñ Bésiroo indi ku tedd ko Touba mm-hmm. lépp ci kanamam la mm-hmm. koro bi ñuy jëlee sëñ Touba di ko indi Touba ku du Cheikh Mouhamadou Bassir ci doomi Sëriñ Tuubaa ne ko ca oto ba 1927 waaw maa la wax loolu de juróom ñenn ca oto ba mën naa leen lim seen tur xam naa leen lu dul loolu nijaayam a ca bokk Cheikh Xari Dieng Diop Maxtaar si la bëkk néeg Mouhamadan Tandexi naaru gànnaar la woon bu daa dal ak sëñ di bàyyi ko gànnaar sëñ Mat Lamin Diop Dagana dur sama doon dawal oto ba juróom ya daal jàpp juróom benn mennum Cheikh Mouhamadou Bassir moo ci doon doomi Sëriñ Tuubaa ca waxtu woowee nga xam ne al la sëñ bi faransi fii mi ngi dëkkoon fii ci ginnaaw ko Sëriñ Muntaxa ku gudd fan la téeméeri at ak lu topp la dund maa daa dem di ko yendu jël di waxtaan ak moom mu ma talaata ji sëñ bi fanaanse àllarba ci ñi fi njëkk ci laa bokk boobu maa ngi ci mag ñi moo tax ma wax la na la nag la sëñ Basiru am ci Seex Ibra ku tedd ki la am ci Baabul Muridina ndax keroog ba maam Seex wàccee liggéey ñetti fan itam xarit di guddi altine ba sedd talaata sëñ Mourou Moussa ne ko indil ma moo ko indi ke sëñ Fallu gi lañ ko fanaanal am na kenn ci soxna yi newoon ci sëñ kër gi nee na teg na bëtam ci guddi gi parce que kim seen dafa xëy wax soxna yi ne ko waaw li ma jaaxal ci fajar gi de damaa gis luñ sàng mbàjjam leen te man démb maa ayee njëlul sëñ Fallu togg añ togg reer coono yi jàpp man ne gëm mënta nelaw mais mais am na lu xew parce que ki ma séen mu ne ko santal yàlla sama am fa lañ fi indi biig loolu ñetti fan itam xarit la di altine ci guddi ba sëddi talaata ña fekk denc baa ma ko wax mhm. léegi nag kon lo tey itam ne am na leneen da fii ne da di am pénc kenn du fi wax waxtaan biir nekk mhm. waaye kon ma wax na la weeru koor sax am na njabootu Serigne Touba ju daan ñëw ci Cheikh Ibra Fall mhm. te buñ masaan a ñëw am na lu maam Cheikh daa jëflante ak ñoom àddinaa ngi may seetaan na xam nañ li may wax xam nga ci weeru koor barki borom Touba mën naa la tuddal ñu bare bare te ñoom duñ sañ a bañ barki Cheikh bañ sëñ Cheikh Ibra Fall du jëm Cheikh Ibra Fall du jëm li Serigne Touba lu mhm. wala mu jëm li doomu Serigne Touba lu yëggul déedéet xam nga Cheikh Ibra moom boo bëggee noppal da nga koy ber rek nga sëñ bee ko ber <laughs> waaw ber ko waaw boo ko beree dangay ngay noppalu ndax moom da ci bokkul te boo xoolee jëf yi xam ne bokku ci ndax fi ne lii nga fi gis ay ay benn kër la rek. tey boo demoon loolu dañ ci dañ ci ñëw yéemu ci yàlla ay ndog yi 100 millions ci benn àjjuma. léegi loolu dañ ci loolu dañ ci ñëwaat léegi euh, dañuy dañuy dañuy xuus jëm ci euh, lan moo sabab ndog ndax dañoo gis ne euh, Baye Fall fu koor jotee ñu ne Baye Fall dafay joxe ndogu Baye Fall dafay joxe ndogu dañ gis ni nga xam ne noonu la ko xalif général des Baye Fall Serigne Cheikh Jëmb yàlla fi yàgg loolu te ànd ak wér ni mu koy waajalee waaye mbooleem euh, buntu kër yi euh, waa kër Fall yi nga xam ne koy waajalee di koy indi ki fi nekkal Serigne Touba lan moo sabab Baye Fall yi di yóbbu ndogu Serigne Touba ko ko sant moo ko sant kan euh, Cheikh lii di indi tabaski tabaski yi ñuy indi xar yi ak ndog yi lu ci nekk ndigalal ku tedd ki la Cheikh Ibra musta def déedéet dama ne fukki ndab ak ñaar la ko Cheikh Ibra daa def ñu ko yenoo njëriñam di ko yóbbu kër gu mag Cheikh Tall mii ma la wax super boobu ñuy ber am na super booy gis ñu koy ber Cheikh Tall la ko daa togg ca wanagu Cheikh Ibra Fall wanagu boppam la ko daa ber daan ko togg moo daan dem ci ku tedd ki direct moom daa waaw ma wax la am na ci biir sax boo xam ne Cheikh Tall nee na damaa togg ndab li ba pare Cheikh Ibra yan ma na ma yóbbul nee bi ma egsee ci këru njëriñ gi ku baax ki dafa am kees goo xam ne boo ñëwee fa ngay teg ndab li hmm. ndab yu bëri ngay fekk ku indi sa ndab fa nga koy teg dem ku baax ki nag mooy bàyyi ba mu soob ko mu génn xoolal boppam nag maa dégg ci làmmiñu sëñ Moustapha Saliou mu ne soxna si dëkkoon sant si la te dëkkoon fii ci te yàggu fi sax yàggu fi jógee man xamoon naa ko de mu jàng Daaru Xudoos mag la woon te sëñ naa sëñ naaj bi mas na koo jox jaaro ci soxna ci waa barsàq la bokk soxna njaxat si la wala kenn am na ci mag ñi ku dëkkoon fii de mu ne mas na ko may kastiloor boo xam daf ko ne yónni naa ko sëñ Tuubaa ba tey ndax mujjug sëñ bi ci njaarim sëñ nee na sëñ sooy moo ko ne soxna may na ma kastiloor boo xam ne mujjug sëñ Tuubaa ci njaarim sëñ bi wax ne ku am loo may wax ndab la ngay def ñam de ko wax moo sa soxla nee na na ko kastiloor sëñ mu sëñ sooy ko ko wan na ko soxna si moo ma ko may na ma kastiloor bi daanaa ko yónni sëñ Tuubaa moo doxal sama yitte sëñ Moussa waxtaan woowee sëñ sooy boo ko ko nettali mu dem def ko kaset maa ngi kaset bi ñu bëri déglu nañ ko léegi nag moo tax seex sëñ sëñ bi nag ndab yi daa ñëw ku nekk ak sa ndab ak fa mu daan bàyyi ko waaye ku ñëw da teg sa ndab ci kees gi dem ku baax ki nag mooy toog ba mu sopp mu génn xool ndab yi bàyyi seex taal galo nag neen dama am taw feexi di teg sama ndab daje ku baax ki génn nee mu ne ma kooku mën a ko mën a seex taal mu ma ndawal Ibra mu ne ko waaw mu ne ndax xam nga Habibullahi mu ne ko maa maa ngi koy dégg mu ne mooy Balla Coro dawal wol ma ko dégg loolu bu baax dawal wol ma Balla Coro se se bàyyi seex taal ma génn xam nga buntub sëñ Balla Coro mooy buntub bi féete côté que sëñ ko bàyyi xaadim amoon rek waaw kër gi ñu doon liggéey njaareem na école bi sax nag franco bi. moo doon kër sëñ Balla Coro. boo génnee ci xur wi boo génnee ci ci buntu kër gi rek. kër gi ñu doon liggéey 99 sëñ Modou mm-hmm. ma ko fàtte nag ndax ca kaw laa xayu ko daanu fi suuf. waaw kër googu waaw mangoog du ko fàtte kër googu am na histoire ak man bu baax du ma ko fàtte 99 lañ ko naar yi fa lañ daloon mm-hmm. école franco boobu moo doon kër sëñ Balla Coro mm-hmm. Baye Cheikh Tall ne ma daw ko sëñ Balla Coro woo ko nee bi ma dikkee xam naa diggante bi nag li ma xaw a yàgg ndekete Seex Ibra ndax xam naa daa xam li xew rek wala lërëm ma ñëw mu ne ma ah Seex Taal bisimilah jàmm da ngaa yàgg de ku foo nekkoon ma ne ko ah damaa dem na ku baax ki yónni ma mun ne ma yónni ma ne ko ah mu ne ma kan mu ne ko ku tedd sëñ Bam mu a ma bis ni ki tey kenn dootu lu yónni billaahi Baye Seex Taal Galo nee ne ko lu fa ñëw ci xéewal man la ko Seex Rafal jox ndax lu ma ku baax ki yónni képp Cheikh Cheikh Ibrahima yan ndab yónni ma ci ku ki ma dem sëñ Touba yónni waat ma wool ma sëñ Balla Coto nee na loolu nag ma ñëwaat Cheikh Rafal na ma Cheikh Tall nga ne foo ne woon ma ne ko ku baax kii ma yónni woon mu ne ma sëñ Bamba la yónni ma ne ko mu ne ma bis ni kenn dootu la yónni kenn dootu la yónni Cheikh Tall nee na lañ ma mujj a yónni nee na daa dima jàll ca biir wala gu biiram xool ab donga bu xëy si ci yow rek di tarbiya dem sëñ Touba nga seexal ko ci ngoon gi nee na lu gaaw gaaw man seexal na ma man lu ñëw ci xéewal mun a xëy xëy doom yut leen seextaal ci bi sëñ bamba ko yónni woon kat doom sëñ sëñ bamba ko yónni woon kat leen ci yut leen nga xam ne seextaal moom ab seex la ci saasi moom ndax li ko sëñ Tuubaa na ko bis ni ki tey kenn dootu la yónni waaye mas ngaa dégg ku gëmee noonu ab sëriñam ah? sab dong buy tarbiyee ci sa wet nga dem sab sëriñ yónni ko rek nga nga yónni leen nga ko sëñ Tuubaa yónni ci la ko Seex Rafaal seexale ne Baye Cheikh Tall nee na lu fa ñëw ci xéewal man la ko Cheikh Rafal yónnee a ah yut leen Cheikh Tall ci néegu biiram nag wana fa Cheikh Ibra gën a fonk ciy néegam nee na fa la ma teg lu ñëw ci xéewal mu ne ah yut leen Cheikh Tall ndax suñ Bàmba ko yónni woon kat doom léegi nag ndab yooyee nag dañ daan toggi njëriñ waaye ndog yi nag laaj nga ma ko léegi gis nga bi Cheikh Ibra ñëwee njëriñ 1915 am ñu ne 1916 maam Cheikh mi ngi bàyyi ko Thiès parce que Thiès la pare woon pour dëkk moom Cheikh Ibra bu sëñ masaan dëkk ci penk moom sowu la koy féete daawul langa ndong moom bi ci des it mooy daawul dëkkandoog sëñ bi ci benn dëkk musta xanaa xamoon ne Seex Ibra musta dem ci ku tedd ki te ko woolu kon ni ñuy def ñun ñooxub sëriñ nii wala nga xool ko ba yaram wi daw déedéet Seex Ibra daw ko def ba tey jii sax Baay Faal yi miin nañ loolu boo xoolee léeg-léeg mën naa cee tudd sëñ Moussa Wambar gis nga bu ñëwee fii ci ku bàkki bu sëñ Fallou xasee nuyoo du nuyoo man man naa seede na tàkk de yenn saa yi sax sëriñ Mountakha moo koy laaj moo koy woolu waaw mooy tax mu jox dooru jóg ñëw waaye bu dul loolu bu dul loolu bu sëñ Fallou xasee nuyoo moom du nuyoo lu dul sëñ Muntaxa ko woolu rek wala mu laaj ko bu dul loolu du joxe loxo parce que li tax mooy moo dafa bokk ci ñiy sakkanal ab sëriñam moom nee na ab sëriñ sab sëriñ koy sakkanal benn mooy doo ko xool ba yaram wi daw déedéet bi ci des mooy doo xat-xat loo di ko sonal bu ñëwee danaan nañ dajale addiya yi nii ñu dajale ko li ñu war a nuyoo yëpp dañ koy dajale jox kenn mu jox sëñ bi mais kenn du joxe loxo parce que xat-xat loo bi ak sonal sëñ bi la ñuy bañ maam Cheikh Ibrahima Fall nag noonu la daa def bu masaana toog këram lu du sëñ bee ko woolu du fa dem bis nag la ko kut baax ki woolu bi ñëwee njaarim na ko Ibrahima Fall damay séntu gan te bëggoon nag nga gun nga gàttandul ma ko te gungeel ma ko Cheikh Ibrahima génn naa yaaram bay mu ne Fall mu ne ko allo ku baax ki wax mu ne ko nee day séntu gan nee na daa bëgg nga gàttandul gungeel ko mu a ah, foo weeru toll ñu wax ko mu ne hee hee ah sëñ Bamba de weeru koor la may wax mooy ganam de nee na mi ngi ñëw kon nañ ko waaj daal di wax naa ah, doom ay ndogu la may toggaloo nañ ca jëm kon te lu waaye am def ca daa di wax ne ndogu yi ma sëñ Bambay toggaloo kat doom ku ma ci jox lu toll ni tànk tànk nag mooy fifteen boo xaaj Cheikh Ibra nee na ma fàggul la ci loo xam ne dootul yàq te boo faatu ma dugal àjjana ndog yi ma sëñ Bambay toggaloo kat doom ku ma jox lu toll ni tànk ma fàggul la ci loo xam ne dootul yàq te boo faatu ma dugal léegi nag daal di commencé nag mag ñi di joxe lañ am maam Cheikh daa ko togg ca la dëpp ak jamono joojee ñu def ko fukki ndab ñaar di ca boole ay addiya akub super. ñoo ko yenu di yóbbul ku baax ki ba di ko yóbbul nag ba nga xam ne ndax Cheikh Ibrahima 1915 wala 16 la ñëw mais 1927 la sëñ bi dem léegi nag Cheikh Ibrahima gunge sëñ Mourou Moussa ñetti at. ci ci ci ndogu yooyu. ci xilaafa gi waaw at mu jot Cheikh Rafal togg yóbbul sëñ Mourou Moussa Mbacke ñetti at yooyee fekk na sëñ Mourou Moussa ne ciy sànc nag. sànc yi mooy diggante jumaa ji ak raay bi lu ci nekk itam nag. gisuma ko ca man Cheikh Ibra Fall de. ànd koog moom maa la ko wax kay. parce que ña doon gas raay ba moom junni nit ak juróomi téeméer lañ te Cheikh la joxe juróom-ñaar téeméer ya te ka fekk ngas maa ma ko wax. altine lañ leen di jullee julleem néew tàmbali ngas ma Baye Abdou moo ma ne boobu at noo pel waaye ku teg maa nga ca géew ba taxaw. julleem néew ñi nga xam ne ñoo war a gas. ak ña doon dem ca gas ca Sordaar Sayid 14 18. sëñ sëñ Touba leen jullee julleem néew ña doon gas raay ba sëñ mu Moussa leen jullee ndax raay ba 29 lañ ko tàmbali ba fin 30 mu yegg nag ba julleem néew ba nag xaw ma luñ ci sëñ bi jublu de xam naa daal ñawoon ñawoon fële moom ña doon dem daal ca soldar sa moom sëñ bi nee leen ko ci faatu mel na ko faatu balar ña doon 14 18 balaay wax de ña fa dem dem nga xam ne 14 la guerre bi déclaré ñu dem ba 18 beres ñëw ci sëñ Tuubaa sëñ bi renforcé waat ñeneen. ña dem ñu bëri njabootu Maam Cheikh Fall am nañu ci demoon liste naa la limal seen i tur am naa ko sama kër waaw yaa pour wax ab taawam sax ca la des tey sëñ Fallou faal mooy taawu Cheikh Fall mu ngi tëdd ci suufu Europe am na ñu ne Grèce ñi ne Paris ñi ne nangam nangam fa la des tey <laughs> léegi nag ñi demoon dellusiwaat ñu ngi fi sëñ Ablaye Fall Ndar ngi fi sëñ Bassirou Awa Diakhaté doomam a ngi fi ñoom ñëpp demoon nañ sëñ Yaaram Mbaye nii sëñ Fall moom daa mel ni ñëwoon na demaat première guerre mondiale après deuxième mu delluwaat jël na conseil dellu si bàyyi mbéykan xam ne nag moo ma ne Cheikh Fall da koo séen muy dellu muy dem mu naa Fallou Fall gore Fallou Fall gore ma ngay dem moom da wóor na ko dellusiwaat te tiitu ko kon sëñ Fallou bi bi mu dellu see ak conseiller Cheikh Ibra Fall na fa lay des moo tax mënu ko dellu moo tax sëñ Fallou Fall des fa. Hmm. waaye li gën a yéeme mooy ba fa sëñ Fallou Fall desee maam Cheikh daf na waaj a sëñ Ablaye ñoom ñaar bokk ndey ak baay de. Hmm. maam jooy na ca ndeysaan ñëw fi Cheikh ah, laa amoon ci taaw ak Ablaye na faatu. Hmm. ne nañ waajal Ablaye Fall nii mu de waaye bu demee bu faatoo ma ñàkk ma deseti kenn ci njaboot. na ko Fat Fall toogal te muñ Ablaye Fall mii dina dem ba dellusiwaat toog di man te yow ñooy àjjana wax ma ko 1953 sëñ Mor Talla nelaw sëñ Abdoulaye Fall toog xalifa ki sëñ Abdoulaye gii de yaakaar naa suma jumul mm. ah bëri na lu mu fi liggéey di fii de carrière jumaa ji de xam ne sëñ Abdoulaye Fall mm. carrière carrière boobu sax sëñ Fallu ñëw na ca maa ma la wax loolu de sengum ñaari néeg Baye Cheikh Tall gala ko dox àllal keroog ñëw na ca Baye Cheikh Wade Ndiaye ma ko wax mm. mun doom gële mo sëñ Fall sëñ Abdoulaye sëñ Abdoulaye ko liggéey ñaar fukki at lu topp la wutu maam Cheikh wala 75 53 ba 75 la fi toog Serigne Assane Fall la jël xilaafa gi kon la ko Serigne Fall waxoon waaye loolu lépp nag da nga cee xam ne kon Babul Mouridina naka jekk nag ba yoon soxlaa bakkan ca soldaar yi Serigne ba xam na li xew waaye bakkan doom la joxe. wax xëy doom ah sëñ Fallou Mbacke bu demee du leen si na toog ma yebal Fallou Fall sans moom. Mhm. kon loolu day wund ne moom. Euh, ab citoyen la woon boo xamante ni lépp lu réew mi laaj tamit da ciy da ciy da ciy participer. ba pare déet li gën a yéeme kay mooy daa fexe sax ba ñoom yabal ñoom ndar lañ juddoo te booba quatre communes yi mooy Gorée Ndar Dakar Tëngéej. jeex na tàkk boo tax sëñ Ablaye Fall Ndar moom ca Ndar la juddoo Fat Fall Wade ko jur sëñ Fallou Ndar la juddoo genn Ndar lañ dëkk. Cheikh Ibrahima dafa xam li xew xanaa xamoon ne bi ko sëñ Tubaay wàcce fii ci Daaru Salaam di ko yabal Ndar di ko soppi aw mu dem jaxasoog njaxasu nit ña fa nekk ak kilifa ya booba sëñ na ni murit mel xanaa Ah, waaw waaw ñoom ñoom Lamine Gueye ñoom dinañ ma dégg ñoom dañ leen di topp sax ay waa kuréel geeg gaay yooyu xam nañ li xew parce ndar doomi ndar lañ dëkk waaye ñoom xam nañ ne mouridisme moom Cheikh Ibra ko dugal ndar parce que Cheikh Ibra Fall la fa jiitu lu yàgg Sëñ Tuubaa doon ko fa fekk jaxasoog mboolem te booba nag kilifa yëpp a ngi biir ndar maam Cheikh jaxasoog ñoom maam Njaaxa Sise sëñ Mor Masamba Jéeri Jeng maam As Kamara El Hadj Amin Ndiaye Mabey sëñ Moussa Xir Mbaye El Hadj Malick Si Amath Seck ma jaara ñi ngi dëkk ndar wër ndar ñi dëkk sindoodi ñi dëkk looda ñi dëkk gàndar Cheikh dëkk ci seen biir di jaxasoog ñoom di dem leen teg maam El Hadj Malick looda man maa jóge sama tànk looda fa saa yu maam El Hadj Malick dox ba gàndar kër Cheikh Rafal xam distance bi ni mu toll jóge fa sax ndar moom maa ngi ndar yaa xam dajaloo nañ ñëw ci Sëñ ne ko dañ lay ñaanal intervention tubaab bi yooyu ci ne ko jëru ko yu mel noonu xam asiru xam loolu moom sax du ma ci du cadre yooyu moom sax du ma ca tey sori man naa naa fi Cheikh rek waaye daal lu waaye mën a wax xam naa lépp nag dara ump ma sax mag ma ko wax waaye man naa yem fi Cheikh Ibra léegi daal la la léegi ndog yi. mu hmm? mel ni euh, taw maam Cheikh Rafal. ginnaaw bi Cheikh maam Cheikh Rafal jugee. Hmm. Euh, bi sëñ Tuubaa jugee du moins maam Cheikh Rafal wéeral na ko ci Serigne Modou waaw. te gunge ko ñetti at. ñetti at yu yu yoo xam ne yëpp ay situation la nag ndax Cheikh Ibra daa waxoon na sax ne li ma taxoon a jóg mooy wane Sëñ Tuubaa bu ko ñëpp umpalee ñu ne ko waaw loolu dafaal def nga ko ak man mun a jàppale Cheikh Moussa Mbacke fa jàppale jafe. bu ma yamee foofu rek mu murid yi xam nañ li xew kon léegi nag mu gunge ko ñetti at yoo xam ne lu sëñ Modou Moustapha joxañ Cheikh Ibra man ci lu sëñ Modou Moustapha joxañ Cheikh Ibra man ci lu gàtt laa lay rek benn fenêtre bu may ubbi waaw benn fenêtre bu may ubbi bu gàtt mooy gis nga bi ñuy gas raay bi réunion bu ñu mujj a def tubaab bi taxaw bëgg a gàllankoor raay bi mbaa xam nga ne buñ gàllankoor raay bi jumaa ju do parce que li tax ñu njëkk a tracé raay bi mooy bagage yi war a liggéey jumaa ji saxaare ko indi Touba loolu képp mooy mooy moo tax mais sëñ Touba moom er, jumaa ji la dig pare Touba bi dañ leen joxoon benn durée moom la fi sëñ bi diglee sant ko sëñ Mourou Moustapha mag ñee ko nettali soñ wax ko ci ay yooni yooni yoon ñu tàmbali ko xam nga xamu jumaa ji sax fondation bu njëkk bi du woon fii ma nga woon fee ca côté jullikaay ba mooy ba tëlëri lekkee xaalis ba daw France loolu ay histoire rek xam nañ ko ma nga woon fële fële waaw bañ indee sëñ bi la sëñ Mourou Moussa wax ne kenn du julli woon sëñ gannaaw sëñ bi moo tax ñu fondation ko ngi taxaw xam nga loolu histoire la waaye ba loola amee pour wax la na la Cheikh Ibra Fall joué na bu gis nga réunion yu mujj yi sëñ Mourou Moussa Mbacke ngi toog Cheikh Ibra ngi toog tubaab yaa ngi toog tubaab bi santa sëñ mu Moustapha na ko nangam bu amul raay bi dafa taxaw. te booba xam nga tubaab bi raay yi fee war raayam yëpp liggéey nañ ko ba noppi. sëñ Mourou Moustapha bëgg a taxaw ngir defar ab raay moo tax gis nga yoon wi yoon wi. barke borom Touba moo tax yi nga fi gis dégg a jóg de yokk yoon wi parce que nag wax nañ waxante dëgg sëñ Fallou kan nga fi mas a gis ku ku defar ab raay dëkk ba dëkk ngir duma mais lu tax loolu kenn du ko wax foo ko mas a dégg. presque lu 40 kilomètres. nga raay ngir juma. loolu kenn moo ko mas a def. raay boo fi gisit boo xam ne dañ ne ay nit a ko gas lu dul état ko liggéey. bu dul raay bàyyi ko njariñ dem Touba. junni nit ak juróomi téeméer duñ lekk coob ci ay ay ay laax ak yii ceebu ndawa la ñuy lekk. jënd ay nag jënd ay diwlin ay litre diw ay tonu ceeb. te jamono ba àdduna naqare. te danaa la wax leen de. magasin bu Cheikh Rafal joxe woon te Ndula fa lañ doon denc dund bi. ñuy gas par équipe lañ ko def équipe bi dañuy tàmbalee Njaarim bi tàmbalee Sambe bi tàmbalee Patar bi tàmbalee Ndura bi tàmbalee Kër Ibra Yaasin ba Dala Ngaabu nga xam ne bi ñuy gas bay egsi Ndura sëñ Mourou saa ci boppam ñëw na ànd ak ma sorang sorang ak mbaaxaan. Baye Fall Maajoor laa dégg mu wax ci làmmiñam ne keroog sëñ Mourou Moussa ñun la tollool jox ñu wargo wu bëri daan maa ngi jëndoo génn di ngeen ci am ndimbala tey ak loolu ëllëg sëñ Mourou ko wax keroog ma sorang la àndal ak mbaaxaan booba ñu ngi tolloo dëkk bu ñuy wax Euh, ba suñ encouragé googu mu ñu gën a ñaar sant gërëm ñu tax na ñu gën a pëseefuwaat ci liggéey bi tàmbaliwaat ngas ma nee na bi ñu egsee ba dala lañ seen Cheikh Rafal muy ñëw wax si vagan bu vert am na ñu wax wax si vagan am ñu wax dorsu lu mën a xew daal mooy kaale maylus gu ñuul la sol la kaalawoo xar kanamu Cheikh Rafal bi da ngay gis muy seen sol daal di woggante ay bot ànd ak ñu ma juróom benn wala juróom seen njaay roqeya Baye Cheikh Tall Galo Youssou Baye Yaram Mbaye Ablaye Xaar Diop doomi Lat Joor sëñ Modou Mbenn ma doon dawal oto mag ñi naaye nañ yegg suuf ndax Cheikh Rafal ngi ñëw ñëpp yegg suuf bi mu ñëwee ba jub si leen maam seex dafa wàcce oto ba góor gee ma nettali nee maa ngi taxaw de maa ngi seen Cheikh Rafal ko doon laa njëkk gis nee na saam Cheikh nee na bi mu wàccee oto ba daal ne xee doom waaw leen góor ah Cheikh Mourou Moussa Mbacke mooy góor kaddu gi la njëkk a wax sëñ Mourou Moussa Mbacke mooy góor doom ah waaw leen góor doom mbaa mbaa foo mbaa foowu leen seen liggéey bi ñu naa ah, déedéet Fall mu naa ah, mbaa foowu leen ñu naa ah, mu ne seen pënd baa may seen aras Cheikh Ibrahima wax lii de seen pënd baa ngi may seen aras danaa ku ne war naa def nii yéen doom ku ko mënta def nii ngeen ko des na gas am leeñ <laughs> am pax Cheikh Ibrahima Fall nee na bu pëndam jógee jaxasoo seen pënd bi doom ndax pënd bi fa ñuy fanaan sori na de te pënd bu demee dëgg yëg-yëg ko def yëgal ki waral pënd bi daan lépp ci mucc lay tàbbi doom daan naa borom yoon wi daan na waaw àlleen ma liggéeyukaay ma def nii yéen ku ñuy wax Jibril Gueye ko sànni peel Cheikh Ibra fi mu taxaw wetu ndi joram ab jànj la mu tibb juróom-ñaari peel dafa sànni mag ngi ne nañ ba suuf si jàll sëkk ba mu taxaw tin naa gars gis ngeen ma ñu ne ko mu ne ma ne naa leen ah leen ko xam naa ko doom daan maa ngi bëgg a mat góor de lii ma lay wax bisub talaata la talaata ci dil altine ci guddi saam Cheikh wàcc liggéey kon kon kon ndekete ba tey da nga fa gisaat ñaari benn mooy na ngeen ma seedal ni ñëwoon liggéey bi kon kenn wërta wàcc kenn wërta wàcc kenn wuyu ma dama la wax ne la Cheikh Ibra ba muy wax loola booba sunu waa ji la ñuy soññ xool ko rek. waaw kenn wër ta wàcc. Mm-hmm. Cheikh Ibra nee na wàcc biir bàmmeel laa ci xamoon. booba Cheikh Ibra am na 75 ans. Mm-hmm. di ñaqal ku tedd ki jël ak njabootam jox ci biir ngas mi ñu ne ci. mu joxe lu ëpp mbooloo mu juróom-ñaat téeméer. ka ca ëppalewaat ci lu mu joxe gannaaw Cheikh Ibra Fall si Ahmadou Ndoumbé la. ndax moo fa joxe téeméeri téeméeri ci nit ña ca des tamit xam naa yi kenn ko mën naa wax ne nangam la joxe moom ndax maa ngi li sib man waaye daal gannaaw Cheikh Ibra Fall sëñ mën lu ma joxe ne téeméeri nit moom ci mbooloo ca booba ñu tàmbali ngas ma waaye gis nga fi ñu toll nii bi Cheikh Ibra fekk na tàmbali ba ba ñëw barkeelu ci liggéey ba mais fekk wut yeggale ba ndax bi raay bi egsi njaarim fekk na saam Cheikh wàcc liggéey ndax góor gi nee na ba saam Cheikh wàccee fajar lañ fa jaar di ko denc nee na bañ xëyee moo ma ne ñëw naa sax ci denc bi waaye la may yàkkamti yàkkamti fekk naa ñu la cay farata ñu def ko moo ñu ko ñëw njaarim boobu daa fekk asamaan taw li may wax ni 1930 am na ñu ne 3 juin 1930 waaye ñetti fan itam xarit la di altine ci guddi ba seddi talaata day indi sa am Cheikh fii Touba waaye booba wane na ne ndax ca kàddu ye góor gi nee na ma wax na ca ne liggéeyub sañ Bàmba ku ci yebal sa doom toogu ñu dee sa bàyyi liggéeyub sëñ Bàmba ku ci sa doom toogu ñu dee sa bàyyi liggéey sëñ Bamba ku ci yaba sa jaam toog bu ñëwee sa sang bu dee sa soxna nga ci yebal bu ñëwee di sa jëkkër daane lii tax ma ñëw naa doom na ngeen ma seedeel na ñëwoon naa kat ah na ngeen ma seedeel na ñëwoon naa kon kon yëf yi amul wàcc de loolu lépp nag la ko sabab mooy gunge sëñ Mourou Moustapha ndax boobu sëñ Mourou Moustapha fi nekk ñetti at yooyu ba mu ko gungee nag ba yàlla dogal nag mu dem sëñ mu Moustapha des fi ak sëñ Mourou Moustapha Fall sëñ Mourou Moustapha Fall nag di togg ndog yi njëriñ di ko yóbbul ko tedd ba ba pare maanaam di ca boole sëñ Basiirou Baara moo ma ne weeru koor fekk naa ko mu teg ndab ni loo xam cere lañ ci def muy xéwlu mu ne ma samaam samaam lii lañ fi bàyyil mu ne ko waroon naa yaa moo ma ko woor mu tegal ma ci ne ma rëccu naa kon damaa waroon naan kafe gi sëñ Basiirou ma ko waat nee na mës naa ñëwit ci sëñ Basiirou booba nee na ma sëñ Bas Saam ak sëñ Moussa Lo Abdourahmane ak ñoo ñoo nekkoon ci sëñ Basiirou nee sëñ Modou Saa Fall ñëw di indi addiye ñu ne ko sëñ Basiirou daa ko am kenn ca magi taali bi ne waaw xale yu ndaw yi nga jox xaalis bu toll ni mu ne seen bàyyi rek a taxoon ma indi ko su ma leen fekk mën na leen jox nee na ma keroog lam ñu jox ci alal nee na booba ñaar téeméer mën naa gën fas aw fas ñaar te nee na ma lañ ñu jox maanaam am na ay at yoo xam ne ci loolu la ñuy jëfandiko xaalis bu baree bari la doon indi sëñ muru sëñ basiru fekk ñu ko jox ñu ko loolu lépp day wane pësee fa moo tax sëñ muru Moustapha Fall nag ànd na ko sëñ Fallu 1930 bi fi Cheikh Rafat bàyyi ko ba cinquante moom la wàcc liggéey 50 waaye 50 boobu mu wàcc liggéey na fekk na sëñ Fallou moom dem 45. sëñ Mourou Moussa Mbacke boog def ka kenn 45 léegi sëñ Fallou nag toog sëñ Moussa Fall gunge ko juróomi at. 50 waaw 50 waaye sëñ Mourou Moustapha Fall nag. ak Cheikh Modou Moussa Mbacke moom dañoo masoon di ànd am na photo yooyu sax boo xoolee ñoom ñaar ñoo taxaw ak gouverneur Wiltor xam nga woote na ca ndar benn benn foto bu gars yi xam naa gis naa ñoom Abibou bu gars yi di ko faral di dugal mais boo xoolee di nga gis sëñ Moussa Fall moo taxaw ak sëñ Moussa Mbacke ak gouverneur Wiltor booba it daa am lu ca xew lu gàtt la danaa la ko nettali gouverneur moo woote kilifa yëpp nag wootoon yoonu mu gépp wax nañ ne tarix yi ñu bari woot woon ren biñ egsee ñu toog rang nii di xaar gouverneur mu génn sëñ Modou Moustapha Fall santu dend ak sëñ Modou Moustapha Mbacké ndax da ko yóbbaale Baye Ibrahima Mbodj ne fekke na loola de ne fekke na ko ca Ndar Baye sëñ Modou Moustapha mu jox loxo jabaram jox la loxo ku mu jox loxo jabaram jox la loxo xëy na nag mën naa am ñu doon jël eh, du nuy ndaw si mën naa am complexe xaw leen a jàpp loolu mën na caa am ak ñàkk leen bañ leen a wor ñàkk wor ma waaye bi mu egsee ci sëñ Modou Moustapha Mbacké Baye Ibrahima Mbodj ne ne ko loolu la xam ne sëñ Modou Moustapha Fall kenn du moom taawu nee na bu gouverneur ne jëyi loxoom sëñ Modou Moustapha Mbacké ba rocc loxoom ba ndaw sa ne jëyi loxoom sëñ Modou Moustapha Fall nuyu ndaw si jàlle ko ne ko kii du nuyu jigéen waaye bu la ci dara jaaxal sëñ Fallou de Cheikh Fall ne ko woon Mouhamadou Moustapha fu ngeen dajee njabootu sëñ Bamba loolu a taq ñoom ne leen taq yéen ngeen yóbbu tuma ñoom ñu set na ko càng gi ak njaam gi fi ne jël leen càng gi jox waa ko sëñ Bamba te téye njaam gi su ngeen ko defee dana dem ba seen njaam gi sax xanaa xamoon ñoom njaam gi ne gën a càng gi mais mais ba ci yoon wi sax hmm. am na ci ñoon du ñu ay Baay Faal tey ñu ngi ci njaam gi njaam gi mooy taalibe gi di moo gën lépp. koo gis ne ko sama maa la te koo ci gis ab bay koo ci gis ab Baay Faal la bëgg a doon man xam naa ci dara am na ci ñoo xam dañ may woo di ma waxtaan lool mais bu ma ñëwee dañ naan bu fi tudd ku du Cheikh Ibra te sama yaakaar yi àddina ak àllaaxira la ñuy doon. kon ndog yi noonu la noonu la continuer ba ci sëriñ Cheikh Cheikh Cheikh Cheikh. dañ mu sëñ ba nag. Hmm? tey xoolal ñii fi toog ñëpp di Cheikh Ibra ba ci sëñ asan Fall sëñ Mortal toog na ko ñetti at gannaaw sëñ Modou Moustapha Fall sëñ Ablaye Fall nda toog ko ñaar fukki at ak lu topp gannaaw sëñ gannaaw sëñ sëñ Mortala sëñ Assane toog ko juróomi at sëñ Abdou Sakkoor togg ko ñeenti at sëñ Modou Minta Fall togg ko ñaar fukki at ak lu topp léegi nag gannaaw sëñ Modou Minta nag ci jàmbaar ji la ñëw sëñ Cheikh Jëm kii ne moom Cheikh Fall ñu ko joxoñ moom kii ne moo ko indi ci ñamu Tuubaa moom ba pare yokk ko nag yokk ko waaye Cheikh Iblaye ne ku yokkut yaa wàññi waaw moo tax nag ba mu fi jógee nag waaye nag téewul nag ñi fi doon Cheikh Ibra Fall ñëpp nag daa nañ togg ay ndogu ñi nga xam ne jotuñoo toog ci xilaaf ak Cheikh Ibra gi daanañ togg ay ndogu ndax ku di Baay Faal ku ne boo bu koor jotee da xanaa xamoon ne buñ masaan togg ndog yi ci njëriñ maam Cheikh day ñëw ba ci fi saxaar si jëm mu teg fab séesam toog saxaar si yëpp ne ci kawam kañuy wax laala la doomam la day ñëw ne ko bàyyi moytu saxaar si ndax baaxul ci yaram seerafal na ko xanaa xamoon ne laal la saxaarus ndog yi sëñ Bamba day dindi ak ragg xanaa xamoon ne saxaarus ndog yi sëñ Bamba day ak ñàkk waaw xanaa xamoon saxaaru ndogi suñ bamb yi gis nga tey bala ngaa boo bëggee koppar dëgg wërsëg nee na ba ñu toogee ndog yi nga taxaw ci saxaar si tuuti journée boobu koy moom faaw mu dox Cheikh Ibra toll noonu xam nga moom mbiram kenn xamul lu mu doon neexut a xam neexut a waxtaane waaye nag depuis nag booba ba tey ndog yaa ngi dox ku fi mas a ku tedd ki itam nag Baye Fall yóbbu nañ la ko ku mën doon indil nañ la ko ngay tey te bu ñëwee xam nga ne sëñ moom du fi téye dara xam ngeen li xew bañ na ko ba sax am na commission bu mu tànn ndog yi ci lañ ne dañuy séddale rek ndog yi day dem ba xoolal man maa ngi fàttaliku ndog yi man ànd naa ci yóbbu ko xel kom ba tey jamono Sëriñ Saaliw daaru salaam gi yóbbu nañ fa ndog yi ba tey fekke naa loola daaru muxti gi yóbbu nañ fa ndog yi dem nañ ba ay dëkki dëkki dëkk yóbbu nañ fa ndog yi daaw sax defe naa génn na ci yeneen dëkk nag yoo xam ne yóbbu nañ ko fi ndax sëñ Muntaxa Gaye Sokone waxoon na ma na am na benn oto bu ko sëñ boole loon boo xam da doon wër di wàcc ay bool daa mel ni daaw sax ñi quarantaine noonu ci dëkk bi ci corona bi ci ndog yi lañ leen doon jox ñu xewlu te loo sax mooy daaw sëñ bi daa wax nañ ko yokk mm-hmm. waaw sëñ bi daa daa sant Baye Fall na nañ yokk lim xam ne Baye Fall yi mbana yañ daan taal dañoo yokkaat yeneen i mbana te kat dinaa wax leen de sëñ daaw boobu confirmé bi xam nga kenn demul fenn daa mel ne dara doxul waaye booba Baye Fall yi sëñ bi moo tax am na koo xam day xool ba mu yàgg bu ne ñoom Baye Fall yi fu ñu jëlee wërsëgu jaaxal na leen daal maam xaalis bi fu ñu koy jëlee jaaxal ne ndax yéen kenn demul fenn ña daan laaj ay kumte laaj wuñ ay kumte ña daan war seen oto di génn génnatuñ dem fenn waaye toog muy dox nag moom soo ko bëggee xam toog dox ñëwal kër Cheikh Ibra Fall dox waaw toog dox hmm. te nag yëf yi nag danaa la wax leen sax de dee muy dox sax am na ndax yëf ñi koy doxal kenn dundu ci ma wax la ko bis ni ko tey moom yëf yi ñi koy doxal li ñi koy doxal ñëpp jóge nañ fi waaw danaa la wax le ñi nga yàpp ne ñoo koy doxal da leen a tiim da leen a tiim waaye yenu wuñ ko ña ko dem nañ de man lu leer laa lay wax te yow xam nga li xew barab maam Cheikh Ibrahima Fall bii at mu jot li muy génn ci ay millions ëpp na ay 20 millions wala lu ëpp 17 millions di dem te li fiy bàyyi ko lépp ci fi nekkal ku tedd ki lay dem te Cheikh Ibra Fall la waxoon sëñ bi ko danaa leen liggéeyal ba sama bàmmeel di la liggéeyal danaa la jox addiye ba sama xabru di la jox addiye. chaque année la fi bàyyeekoo ci ba chaque année liy bàyyeekoo ci barabu Cheikh Ibra Fall du jàdd ci kenn ci ki fi nekkal sëñ Tuubaa la jëm. Mm-hmm. ba tey Cheikh Ibra man ñëpp ci addiye nag ba fee mu tëdd tey moom man ñëpp ci addiye sëñ Maam mel ni daanaka waxtu wi <laughs> mat na ndax Cheikh Fall moom xajul ci émission xajul ci ay waxtaan mhm. mën nañ fi toog fii di ko wi fii ba suba mhm. euh, te booba léegi daanaka ci benn benn benn ponk bi rek lañ nekk muy ndogu mhm. digganteem ak euh, Cheikhul Khadim mu mel ni daanaka waxtu wi mat na xam naa ñu bàyyi la rek nga nga nga tàgg wala yan kàddu ngay tëjee waxtaan wi waaw kay moom daal li may sant mooy <coughs> man daal damaa damaa li ma sant mooy xam naa ne Cheikh Ibrahima moom la mu bëggoon sëñ bi am na ko moom te nag moom dafa waxoon na nu waaye mën a mel na ja na tàbb ci sëñ Bamba dootul génn moo ko gënal ndax Cheikh Ibrahima moom benn yitte képp la am ci àddina mooy sëriñ bi lu masa a fekk yitteem tamit mu yittey sëñ bi ci kaw suuf dara loolu du fa xaar dara ndax man xam naa ci jumaa jii xam naa nit ak yu noppam mën naa leen diw la bu ñu àndoon Touba Fall ma ne la famille bii la seen maam la sëñ bu Moussa Fall tay def ci jumaa sëñ Fallou la ko jox da koo tayle tayle jël koppar ya dem yut sëñ Fallou bàyyi fa waaja yaa ngi dégg. loolu am naa ci lu ma leer man naa ni tekki noppam la sëñ Moustapha Fall tayle def ci jumaa ji tayle kër Cheikh Ibra Fall gi nga xam ne fa la maam Cheikh waa ci liggéey jël kër yi jox ko yéeli manel na ko demal tayleel ma ko 500000 lañ ko tayle mu jox ko sëñ Fallou keroog ba sëñ Modou Moussa Mbacke keroog ba sëñ Fallou sëñ Modou Moussa Mbacke demee sëñ Fallou toog 1945 na miraax naa sàmp def ci jumaa ji sëñ Modou sëñ Modou Mamoun Mbacke ma ca jotaay ba dooñu maam Cheikh mu njëkk a sason 500000 teg ci taabal gars yi upp carnet bi am ko ko joxoñ na ko mu saa Fall fu ñu waxee nga tabbu sas te yow dégg kuñ nga sasoo fi dara sëñ Modou Moussa Fall jël loxoom dóor ci taabal na sasoo naa jumaa ji feeg jumaa jàng du ma am dara suñ ko a jox ndigal du maye du leble du saraxe fii ndigal la àggul te dañ nekk lam njëkk a def mooy jël sëñ Cheikh jëmbu Fall ko wax de joxe ci jumaa jël sëñ Cheikh Fall Xadigee jox sëñ Fall ñu ne ci daare jumaa ji tey mooy Cheikh Ibra Fall kon la sëñ Touba waxoon na ku ci feeñ dootoon nëbbu tey moom ku xa lu waaye gàtt gàtt xam-xam xam na sëñ Cheikh jëmm tey danaa la wax leen de fii at yi toll nii di mag ndax ñi fi nekk ñëpp moo leen mag nag mhm. ndax lu mu gàtt gàtt jàpp naa ne 1925 la kon fi la ko ku tedd ki bàyyi mhm. te ba tey jii moom man ñëpp ci jëf mhm. demul fenn te lépp a ngi dox ci moom lañ ko mës a gisee projet milliards yi mooy ay université lu ne nga di ko gis maanaam ci ay daara alxuraan kon loolu lépp day ay liggéey yoo xam ne dañ léppay dox lool nag day wane ne kon Cheikh Ibra am na ndam moo tax ñi ngi ñaan ci barke borom Touba ndamam loolee mu am ci ku tedd ki yàlla na sunu ndamit ëllëg tey tey ëllëg su ko defee ndimbal la Seex ra am ci ku tedd ki it yàlla nañu ci dimbali. ndax maam Seex moom sëñ Tuubaa waxoon na ne fa ma ko sànni bu fa xay koon ba ëllëg yow may xam du laal wax ci njëriñ Ibra Fall naa ko foo xam ne bu fa xayu woon ba ëllëg yoomal xiyam du laal suuf moo tax Seex Ibra dara yittiwlu ko woon lu may bëgg-bëggu sëñ bi daana wax ne xeexee doom ah, ku bëggul lu may lu baax fu lu baax nekk mu ñor la waaye ku bëgg lu may àddina Cheikh bi ne boo seen àddina fi yow rek la yëngoo loolu fi ne jamono yegg si nañ ci de Cheikh bi ku bëggul lu may lu baax fu lu baax nekk mu ñor la waaye ku bëggul lu may àddina boo seen àddina fi yow rek la yëngoo léppam nag am njàngale la woon mm-hmm. léppam am njàngale la woon kon nag nañ ñaan suñu borom mu mu mu tànk yii nga xam ne jaar na ci daal te mooy tànk liggéeyal Sëñ Tuubaa ndax yoon ku fi bëgg a dox Cheikh Ibra Fall ngay roy loolu moom sëñ Fallou amul ma dem te ñëw yoonu ku fi bëgg a dox Cheikh Ibra ngay roy te sëñ Touba ñu ko joxañ te Cheikh Ibra Fall nee na yoonu sëñ Bamba yi maay fiy royukaay bi ku ma jeggi rek weesu nga dig ku ak siwul ku bëgg ci lii sëñ Bamba amit ma Ibrahima Fall ma def ngay def mooy ñaqal sëñ bi jox sëñ bi sa lépp bañ a boole sëñ bi dara liyee waral mbàkke mbàkke yeeg yeneen e, seex yeeg ñëpp ne ñàpp ci Seex Ibra bëgg ko ndax lan mooy diggante ma sëñ bi gis nañ ne amul benn frontière Seex Ibra moom sëñ bi rek la bëgg moom moom bëggul leneen ndax lu toll ko ko bàyyi bàyyi woor bàyyi natt asaka bàyyi lépp daana sax ñëw ci daara xaal jàpp ko mu fekk fa ku yor ab téere Cheikh Fall day jël téere naa ah, ku moom lii borom na cell mu ne ko moom lii borom na cell mu ne ah bëgg xam li ci biir bëgg liggéey sëñ bàmmunta ànd moom gëmutoon ci àddina dara lu dul liggéey sëñ Tuubaa ci moom lañ mës a dégg it mu ñëw ci daara yi ñu ne ne kaay tàbbi ci biir daara ji Cheikh Rafal taxaw ci buntu ah, ku ci dugg yokk te bëggatumaa yokk ah, yokk te man Ibra Fall wàññi ko laa kon kooku plafonné na de <laughs> ku bëgg a plafonné faaw nga di wax ak moom loolu daal laa amoon ci lu ma ci doon dolli. gannaaw di sant bu baax a baax nag tey gërëm tey ñaan suñu borom dolli leen taxaw bu baax a baax ci mu Babou Mourideen di maam Cheikh Ibrahima Fall. Mhm. jërëjëf euh, sëriñ Mamou Ndaw baay Fall waxtaan wi am na solo lool li ma wax sànq rek ne waxtaanee maam Cheikh Fall moom xajul ci benn jotaay xam naa rek dañuy programme sax beneen euh, jotaay boo xamante ni dana jël yeneen ponk ci euh, maam Cheikh ndax nekk na koo xam ne lim liggéeyal Cheikh Bamba sëñ Bamba mënuñ ko mënuñ koo waxtaane ci jotaay mënuñ ko waxtaane ci jotaay mënta nekk te it ngërëm li mu am ci sëñ sëñ Bamba loolu ñëpp ñëpp ñëpp xam ko ñëpp teg nañ seen bët seen euh, bët ca ca ca ca ca ca moom ba ni nga xam ne noonu la ay sëtam nekkee xalifa général mbir yi li nga wax sànq rek lépp day dox te kanam la jëm saa su ne loolu nag liggéey bu nangu la kon ñuy ñaanalaat euh, Serigne Cheikh Jëmb Fall mu yàgg fi loolu te ànd ak wér waaye ñaanalaat euh, ki nga xam ne moo di Serigne Mountakha Mbacké Bachir mu yàgg fi loolu te ànd ndax ay jàmbaar lañ yoo xamante ni saa ne ñoom Euh, ñu ngi wane yoon muy lan muy jëf topp ci ki nga xam ne moom moo di Cheikhul Khadim lépp lu mu diglee rek ñu jëfee loolu te kenn du leen dégg ci loo xamante ni ab safaan la kon loolu nekk na loo xamante ni képp kuy murit Baay Faal war na roy ci ñoom leneen lu ñuy dégg loo xamante ni euh, bokkul ci yoon wi bokkul ci yoonu Baay Faal loolu war naa moytu war naa euh, war na ñu moytu ko ndax bëri na ñoo xamante ni xëy na ñu ngi gàkkal li nga xam ne moom moo di yoonu maam Cheikh Ibra Fall waaye nag li nga wax sànq rek coow moom yàgg na ak ak ak ak ak ak ak yoon wi kon euh, loolu faw ñu bàyyi ci xel di leen santaat bu baax a baax a baax di leen gërëm leen di la sant bu baax yow it sëñ Mamour ci euh, jàppandal gi ñu jàppandal jotaay bi di sant mboolem ñi nga xam ne ñoom ñu doon bàyyi xel ak ñi nga xam ne ñoo doon suñu cadreur muy Moustapha Lo ak euh, Serigne Mountakha Ba ak Mountakha Ndiaye ak mboolem ñi nga xam ne ñoo jàppoon ci technique bi ak assan Diop. santaat leen bu baax a baax gërëm leen di wax yeneen i jotaay daañu ko amal fii nii ci Touba Mbacké lépp rek jëm ci koor gi ak ni nga xam ne noonu lañ ko fi dundalee wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf